maa ngi lay nuyu dégg nga maa ngay nuyu Sénégal. Mm-hmm. di nuyu askan wi parce que. da dama daw sax garaabu bu ba xaw ma du ma koy solee dégg nga parce que ndax yàkkamti parce que waa ji génn léegi mm-hmm. dafa commencé dugg ci ay point yoo xam ni duut lu may ànd moo tax ma woote rapidement pour nga jël ma laaj ma rapidement ci question yi parce que mënu ma fee nekk ñu may ziar. kenn du la ziar quoi. Màkka laa jógee ba fa dalee jógee du tay je pense que. waaw yow yaay allah yow yaay El Hadj ah. je vais répondre. waaw waaw président. dégg nga dégg nga li dégg nga kàddu yi ki nga xam ne rek moo di. moo

république dafa am aw yoon. république dafa am noo xam ne noonu la doxee il a bafoué la république. il a bafoué la république sa sa Macky Sall. Mhm. parce que ne touche pas à ma femme benn président a koo wax. di di jéem a jaay ay mbëggeel ak ay nobel daf mhm. ñoo dàq nopp. dàqu ñoo bëgg dégg nga ba ñu dalee bëgg xamut mbëgg mbëggee waaw ma ne way wa way wane ko si di dafa bëgg ba dafa dof keneen dafa bëgg ba dafa dof keneen dafa bëgg ba dafa dof dégg nga dañoo bëgg ba ba dof waaye duhut lu ñuy wane duhut lu ñuy wane cëb liggéey mhm. warta doon lu mu réew mhm. ngay jël sa bopp di taxaw naan créé naa ab mouvement ne touche pas à ma femme loola day wane ni yow réew mi taxatulaa jóg ko réew doo ko jiiteeg ay sentiment ay mbëggeel ay cofeel ak nobel nobeel loola yorutum réew dëgg la taxawalut sax ab entreprise waxuma laakki mais ñëpp a bëgg ñëpp ay tombé amoureux ñëppay bëgg bëgg ji jàppante ay cofeel dëgg la ñu ci coppateeg yu ni mel mais il faut contrôler ton cœur sa xol ko xol dañ koy contrôler ko jël ko bari xol ba da lay yóbbu fu ngeen loola c'est pas normal comme daal xol kenn du ko bazardé kenn du ko bazardé jël ko rek jox ko nit ne koy yaay borom da nga koy téye dégg nga parce que ay sentiment bu duggee ci république république gisatuma ko loola la àndul waaw yaakaar naa ni ñas yàgg nga ñëw ci li nga xam ne rek moo di suñu plateau waaw te ni nga ko waxee leer na waaw dina am nag ñoo xam ne dañu joxe seen suggestion allez-y allez-y 88 628 99 1914 yàllu allez-y asalaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi lay fay sëñ bi. waa El Hadj Sine Lamine Niass maa lay nuyu. maa ngi lay fay expliqué yow li ñuy expliqué ni dafa mel ni yow. en euh, matière d'amour est-ce que xam nga bëgg lu bari. lu bari laa ci xam est-ce que yow. Euh, tu es un homme galant. je suis galant. mu ànd parce que li Macky def. waaw. ça c'est wala yow boo xamoo ci galanterie. xam naa ko. ma ma ma ne déglu ma lim may laaj. ñas question bi xam naa débat ma ne mais c'est-à-dire kii xeetu kii fekkewu ma à l'œuvre kii bu ma ko nettalee samay jamono. mais day waaru ci yàlla dégg ko li muy laaj naan ndax Sidy Lamine eh, eh, il est galant ou bien il n'est pas galant. Uh-huh. mais je suis un homme très galant. Uh-huh. xam xam la galanterie xam na ma cay doxalee ak fa ma cay yem. loolu lépp xam naa ko mais mais mais réew mu nekk ak la mu am. dëgg la kii fekkuma Kaolack. bu ma fekkoon Kaolack tu wax li mu wax. dégg nga bu njëkkoon. à l'âge de sept ans. dégg nga jë juróom ñaari at. waaw boobu yow mooy juróom ñaari waaw mooy mooy mooy mbëggeelam njoos njoos njokket. ah mooy njoos njokket waaw. Ah, yooyu day am à l'âge de njoos njokket. Mm-hmm. foofa amoon na njoos. dégg nga danga naan kon yi na kon joos daw dégg nga mu ne la ñaxes yooyu ci laay sentiment di démarré bu njëkkoon ah. réew mu ne la mu am la daan yëkkati boo demaan France dañuy yëkkati ab jaaro tàllal la ko ne la veux-tu m'épouser ah. boo demaan Inde ab fleur lañ daan yëkkati ne la veux-tu m'épouser foofa ca Kaolack nii laa fa mës a def ne groupe sukk yëkkati mbuusam xorom Kaolack xorom la am ne la veux-tu m'épouser

cofeel fu ne lay jógee waaye nag bul ko dugal ci se liguey mhm. ne mélange pas mhm. l'amour et la travail ne mélange pas le boulot et les sentiments de boulot dégg nga su fekkonte ne jabaram yem na cib cin dégg nga génnut wa kenn du ko wax dara waye bu nee fondation servir le Sénégal ba nopi ñu jox ab khalis xaalis boobu danañ ko auditer danañ ko càmbar danañ xool la nu mel xool ba xam ndax kii lii ñu fi dugal yoon la wala duhut yoon waaye génne mouvement naan ne touche pas à ma femme damay génne beneen mouvement. muy ban tuddee ko on le touche on le touche on le touche. on le touche on le touche on le touche.